salaamaaleykum mbokki téléspectateurs ici à Antenne télévision Mbour TV am neen mbégte Guen émission Mbour TV matinale ça su nek comme ni ñu koy defee altine ba aljuma té nak euh, nek euh, talata fukki fan ak juroom ben ci weeru octobre 2018 di bés bi nga xamné ni moy journée mondiale de l'alimentation. alimentation bés bu ñu jagleel wàllum euh, dund gi maanaam ñi nga xamné ni ñom ñoo nek ci dëkk bi ñu ñuy dundé ñi n'ek ci àll ba ñu ñuy dundé ñi nek ci aduna bi fépp muy journée mondiale de l'alimentation. mu nekk lu am solo waaye tey euh, émission Mbour TV matinale tamit euh, nekk euh, émission bi nga xamante ni di ngeen si am seen rubrique en route vers 18 safar ànd ceeg Ami Ngom waaye beneen rubrique bi nga xam ne ni moom mooy Dóor waar ànd ceeg Binta mu wax ñu tey lan mooy rubrique Dóor waar waaye laata loolu dama koy nuyu mu nuyoo téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan Binta na nga def. maa ngi fi Djib Diop Ndiaye euh, di ne rek salaamaaleykum mbokku téléspectateur Mbour TV nuyu nañ kenn ku nekk euh, turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay euh, seen sista Binta ci seen rubrique Dóor waar ñu nuyu suñu caméraman bi ak Babacar Fall mi nga xamante ne moom moo yor wàllu journal su ko journal su ko defee rek ñi daal di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi ak ñi ñi tëdd ci hôpitaux yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo am. jafe-jafe yal na leen yàlla fëgg seen bopp ñi tëdd ci hôpitaux yal na leen yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a jóg mën a dog ci seen activité comme ni mu ko waree ñi amul borom kër yal na leen yàlla may soxna su baax ñi amul jabar yal na leen yàlla may jabar ju baax yàlla may leen njaboot bu barke jaajëf Binta borom rubrique Dóor war waaye tamit ayda xam nga tey moom daa xëyee euh, beneen temps donc xam ni loolu moom moo tax mu tardé euh, mu nekk nag il fait un bon temps fii nii euh, jamono ji ci Mbour ak fépp foo xamante ni zone yu bari si Sénégal mu ngi waajat mu ngi taw ñu nemmeeku nag ne octobre bu jotee pour nga am ay taw yu xaw a kii day jafe waaye taw yemamaay donc moom moo am ci fii nii ci doanu Mbour ñu wax nag Euh, ànd ak yéen dem ci seetaani suñu sponsor leader di Binta Fashion muy boutique bi nga xamante ni day jaay lépp lu baax dama leen di bàyyi ngeen seetaan publicité bi ñu dellusiwaat ci plateau képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak kër Binta Fashion kër Binta Fashion chez gérant bi moom mooy Ahmed bi njaay wala nag gérante bi di Burel Gueye. képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo bëgg nga Dubaï directement wala États-Unis directement demal seeti Kër Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay ci numéro téléphone bii di 77. 987 58 37 vingt 77 987 58 37 sept moom soixante Burel sept nga cent ko rek mu fekk la fi nga indil la ci marchandise bobu wala nga ci 77 774 60 68 kooku Ahmed Bibi Ndiaye wala nga ci 77 021 55 71. kep ko xamanteni be nga ci Somon Ngekor wala SINJA. mën nga woo qui 77 185 72 27 mu indil la Ou ba Momo wala Petit Boy ci 77 419 93 09 yow de dëkk Ngaparou Somone Ngekor wala Sindia ci numéro téléphone le ngay Yere ñu indil la gérant Ahmed Bibi ou wala Bourel numéro téléphone bi 77 987 58 37 le 77 774 60 68 le 77 021 55 71 les pluies matériel bu jógee fele original waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque cheveux la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphone yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ngi jógee Dubaï wala ca États-Unis directement Kër de Fashion chez Kumba moo leen di émission TV matinale jërëjëf Binta Fashion euh, Binta Fashion chez Kumba nak di jaay ay bagages yu am solo ah ay original qualité té tamit euh, di euh, jaay ay cheveux naturels ay téléphone portable magal ga nga ñëw jeesneer ya nga fa lépp lo leen soxla rek ci lu baax dem leen séti Binta Fashion mu ngi fi ci doonu Mbour waye tamit ñu nekké ngaporu Somone Caajaay Sindia fépp fo le nekk si biir zone Mbour bi rek bu ngeen woté ci numéro yi nga ni défilé nonu di ngeen mëna jot seen commande lepp loo leen soxla ci lu jëm ci naturel de classe bu ko dañuy euh, émission bi dañuy ak chaque jour en route vers 18 euh, safar lañuy ñuy wax wàccaay jëm ci màggalu Touba gi magal Touba édition 2018 nek le 28 octobre di ñaanal Serigne euh, Mountakha euh, yàlla na fi yag lool te wër mom moy khalife général des Mourides dañ ci ànd ak Ami Ngom mu indil ñu tay en route vers 18 safar Ami Ngom bisimilah lan mo lan mo am tay ci 18 safar. salaatul lazi fi kulli shahrin wa fi safar. jërëjëf bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jaraw la ke maam Cheikh Ibrahima Fall waaw tey ñu ngi fii ci marché bi seen premier numéro waajal safar gi en route vers le Magal ñu fekk si fii ñi nga xam ne mooy waa daayira xidmatul xadim ñi nga xam ne ñoom ñooy def seen safar tey ci quatrième jour weeru safar bi safar bi ndax Sëriñ Tuubaa moo ne woon Euh, santale leen ma yàlla ci jour màggal googu noonu di 18 safar lu ko dalee ci ganaar ba ci gileem santale ko ko yàlla kon lu ñu def lu du sant sëñ Touba. tey nag danoo ñëw ci bis bii nga xam ni mooy waajtaayu safar waa xidmatul xadim nekk fii ci réseau bi ci Mbour ñooy def seenu bis tey muy ñeenteelu fan bi muy bis boo xamante ni bii yàgg nañ koo taxaw ak suñu kilifa muy sëriñ Jili Mbacke Ngaabu. surtout sëñ Mbacke kadior moy ki nga xamni moy kilifa gi kon euh, sëriñ Jili mo tok ni tay na ñi ngi Mbour ci marché central di taxawé safar di rabi'a safar ñeenti fan ci wéru safar comme niñ ko daan défé mbokki talibé yi ne ci marché bi taxawalon ko ci. ñëw guñ ñëwoon ci man laaj ma ndigal ma jox leen bis bi ndax ku ne xam na ne Serigne Touba moo bind ne xarajtu yow ma sabti rabia safar li xidmatil muxtaar fi sahri safar ci jaaw sa koril atuuf da nga dégg muy li ne génn na ñeenti fan ci weeru safar loolu nag xëy na génnuk baatin la am na ñu wax ne sax booba la amoon boobu la amoon yéene génn waaye ndigal li mooy fukki fan yi ak juróom-ñett waaye lu mën a xew daal lañ gis ci mbindam mooy rabia safar muy bis boo xam ne ni bisu baatin la xëy na bis boobu la amoon la amoon la amoon ndigalul génn waaye feesal gi nag saayir si nag mooy fukki fan ak juróom-ñett moo tax ñu tànn bis bi di ko waajale màggal tànn gi nag du dara lu dul togg ay bernde ak i xéewal jagleel ko mboolem ku nekk ci mars bi moo xam jullit nga sax wala ngay kudul jullit moo xam murit nga moo xam tijaan nga moo xam laayaan nga moo xam xaadir nga ñun daal amuñ ci xaj ak seen ànd koog mbokki taalibe bi nga xam ne ñoo ne ci mars bi muy lu am solo loo xam ne nii nag mm, rafet na rafetaay goo xam ne nii jégg na dayo ndax ku ne xam na ne sëñ Tuubaa moom euh, dafa digle foo fépp fu ab taalibe bi nekk rek na nga doon koo xam ne nii da ngay dimbalee waaye na nga doon koo xam ne nii tamit dangay jàppale sa mbokkum jullit moo tax wàccaay wi du dara lu dul jiitale ko ca lam mu bëggoon muy jàng alxuraanul karim moo tax bi ñu jàng nañ fi ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett lépp nag ñu def ko addee sëñ tubaa ngir waajale ko màggal gi ndax ku ne xam ne ne mun Muntaxaa moom euh, bi mu woote ci wootam bi bokk na ci ne nit lu mu tële tële bokk na ci li nga xam ne war na ko waajale màggal gi eh, muy jàng ñetti kaamil ni ko sëñ Saalihu Mbàkke daan diglee moo tax bi ñu xëyee kaamil lañ ko jiitale ak xasaayid Seexul Xadim ndax sañ tubaa moom lépp lu mu am rek alxuraan ci la ko amee rafiqi kitaabullahi wa ashaabahu fil bahri yayna adduuru nee ne sama àndandoo ci tukkib géej gi de du dara lu dul téereb yàlla bi di alquranul karim ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ñoom loolu lañ xamoon loolu lañ xam moo tax biñ xëyee ñu jiitale ci alquranul karim kon loolu yaakaar naa taw féexi ne waaye kawe na njort waaye nag def nañ ndigalu sëñ Tuubaa teg ca bernde ndax bernde moom ku ne xam na ne màggal gi ñett yi rek la sant bernde jaamu yàlla moo tax rey nañ fi ay nag togg ay xéewal wax nañ ne taal nañ fukki mbaan ñaar fukki mbaan ak juróom-ñett lépp ngir jox ko mbokki jullit yi nga xam ne ñoo ne ci diwaan bi di mbuur def ko lépp eh, sante ko Serigne Touba kon loolu tamit yaakaar naa kawe na njort ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan yàlla liggéey bu am soli bi ñuy def di ko taxawee di ko waajale màggal gi lépp yàlla na ci dajeeg ngërëmal Serigne Touba ndax Serigne Touba moom. tëlewul dara waaye bu fekkee mel na ne am na lum tële mooy màggal gi moo tax mu bëgg sant boromam ci xéewal yi mu ko may ak may yu rey yi mu ko may mu ne képp koo xam ne nii sama mbég sa mbég la bu bés bi ñëwatee nanga ma ci santale yàlla saa moo tax loolu murid yi dégg nañ ko moo tax ñu koy waajale bis bi di ci sant di ko santale yàlla boromam kon nag yaakaar naa loolu lu kawe njort la lu waaye lu lu lu yéeme la moo tax euh, mbokk taalib yi ne ci diwaan bi ak fépp fu ñu mën ne ci Sénégal ñoom dégg nañ loolu moo tax weeru safar bu taroo rek dëkk boo dem nag danga nga fay gis ne ñu ngi koy waajal ci e, bernde ak jàng alxuraan ak jàng xasida ngir waajal bis boobu nga xam ne moom da dafa digle woon ne nañ ma santale santal sax sama borom kon nag ñun yaakaar naa bu dee mbégum sëñ Tuubaa mooy suñu mbég kon yaakaar naa euh, war nañoo dégg waxam jooju ne nañ ma ci santal yàlla sama borom. sëñ borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér. ak ñun bokk talib yëpp ba mboolem nar lim liggéeyal maamam rek yàlla jàppale ko ba ba ba yéeneem àgg ànd ko bokk julli ñëpp ci daraja suñ tubaa waaw maanaam njàngam xasida yi nag njàngam alquran ji suñ tubaa moom dane dama bëgg ngeen santale ma yàlla sant gi nag lim ci jiital mooy jàng alquran ak jàng xasida ak bernde loolu la ci loolu la ci jiital ne nañ ko nañ ko nañ ko ci defal léegi nag jàng alquran jàng alquran nag bii nag mooy ñeenteelu yoon buñ ko def ci ñeenteel yoon bi bu njëkk bi jàng nañ fukki kaamil ak juróom-ñett beneen bi ci topp jàng nañ ñaar fukki kaamil ak benn beneen bi ci topp jàng nañ ñaar fukki kaamil ak ñett tey jii nag moom daa bokk ci wid yi nga xam ni juróom-ñett juróom-ñett yi nga xam ne nii day ab secret boo xam ne nii tey la ko yàlla feeñal mu ci ay ak suñu muntaxaa basiru tey jàng nañ ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ñaar juróom-ñett yooyu tolloog li ma xarafi tuuba tolloog li ma arafi yi nga xam ne mooy mu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett li jàng nañ ko ci rek ak li ci waaj fas rek suñ borom àggale ko ci daraje suñ tubaa ba mu kawee suñ jort ba mu ëllëgee lépp lu luñ mën ñu gën koo mën rek ci daraje suñ tubaa fi kulli shahrin wa fi safar amani ala mani jërëjëf Amy Ngom euh, di la jaajëfal bu baax a baax euh, te tamit euh, di wax ne saa su nekk nii la rek dañuy ànd ak yéen ci wàccaayu màggal gi ba ba ñuy demee Touba incha allah ànd seeg Mbour TV ñu ñëw nag ci rubrique bi nga xamante ni moom mooy Dóor liggéey saa yoo xëyee génn sa kër donc dangay dem nga wuti ji loo jàpp loo surtout loolu lay may xaalis wala luy tax boo bëggee dépense am ko waaye tamit luy tax soo bëggee faj sa yenn soxla yi am ko ñu ànd seeg Binta mu ñëw ak ñun ci Dóor waar Binta. waa Djibi Diop lol di dina ma neex lool ndaxte euh, ñun ci euh, li ñuy yëngu moy liggéey te liggéey dafa baax lu koy def tay subo dina la njëriñ euh, njëriñ bi moy nga xey lamb sa po nga am sa soxla lamb sa pos fajj ko ci sa ci comme sama kat bi num ko waxee rek cion sec <laughs> nee bo war nga la war nañ liggéey ba dee bo liggéeyee ba pare rek nga lamb sa soxla taxaw nga lamb sa pos fajj ko ci sa ci loolu dara taxuko kon nañ gëna a gor rek liggéey rek am solo su ko defee rek rek <laughs> ñi dem si baykat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk euh, kaw ga démb demoon nañ fa dañuy xuusaat bu baax ci yeneen fànna ñi nga xamante ne ay baykat lañ te seen euh, doole bariwul noonu li ñuy yaakaar mooy li ñuy bay bu jotee rek ñi daal di ko jaay mais li ñuy remarqué euh, fii Sénégal mooy da gis koo xamante ne day bay toolam maanaam mu yor ay bagage war koo jaay Sénégal am yaakaar fii la koy jaaye ñi ne ñu ko bàyyi bagage boobu ñu dem indi yoo xamante ne ay importé la lan moo tax Sénégalais yi tàmm loolu lan moo tax duñu mën a jàppale suñu réew koo gis ku ne rek mu dugg ci euh, bato mbaa mu dugg ci gaal dara warul ko lu dul dem dëkk jàmbur te alors que ñun am nañ loo xamante ne loolu suñ ko jàppee mën nañu jàppale bu baax a baax nee naa leen liggéey am na fi am na Sénégal ku bëgg a liggéey rek di nga liggéey mais des fois ji bi nga liggéey ba dee doo ci am dara ndax ñi nga xamante ne ñoo la war a jàppale duñ la jàppale ndax loolu euh, bañ a jàppale weesuwul loolu nit ki bay li mu war a bay rek mu ñëw di ko jaay metti trop ak li ñuy jànkonte foofu ñëpp xam nañ nawet mu méttee ak sacrifice yi ñuy def foofu ñu bëri am ñu bëri ñoo xamante ne fii la ñuy nekk mais bu nawet jotee rek dañuy ñibbi dem jàppale seen waajur yi parce que yaakaar boobu la ñu am bu demee euh, ba pare su demee ba ñor si loolu la ñu mën a jàppale seen njaboot ñu teg lañ ci dans la bon bonne condition mais tey ji jibi bi démb maa ngi doon déglu benn journal boo xamante ne waa Sonacos man li dagg déggatuma tur boobu sax Sonacos kooka laaj rek da naan lan mooy Sonacos Sonacos mooy ñi nga xamante ne euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi yëngu ci wàllu gerte ci li lépp loo xamante ne diwlin la ñu ñoom ñoo ñoom ñooy yëngu si lool pourtant am na fi Sénégal mais ñu bëri dañuy préférer indi ay importé te alors ko loolu noonu jibi suñ ci jàppee bu baax a baax Sénégal mën naa am développement man tey je ne peux pas concevoir à chaque fois ñi naan état deful li defal la alors que ñun ñoo mën a jàppale suñu bopp ndax liggéey yooyu suñ ci jàppee ñu góorgóorlu bu baax a baax mën nañu njëriñ te loolu day andi développement si dëkk. waaw c'est c'est c'est normal ah parce que tamit euh, ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy liggéey ci wàllum euh, importation et exportation surtout état bi war na mën a jàppale. entreprise yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi muy entreprise locale yi mm-hmm. euh, ñooñu nga xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi ay doomu Sénégal ñoom ñoo koy def mm-hmm. donc euh, Sonacos muy Sonacos muy baykat bi parce que baykat bi day tollu benn instant mm-hmm. euh, dafay soxla ku jënd gerteem bi day soxla tamit ku jënd dugub bi wala tamit day soxla ku jënd ceeb bi muy bay wala li ni mel surtout ceeb bi donc il faut que ñu jàppalante suñu biir ñu xam ne eh, ñun ñi euh, développement sa commence d'abord euh, suñu réew. ñu gis ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, baykat yi di war a jaay seen ceeb bi ñi nga xam ne dañoo war a jaay seen gerte gi ñu war a jaay seen diwlin yi donc dañuy am ay problème loolu nag état war na si mën a jàpp di encourager secteur yooyu noonu ba nga xamante ni tey dootuñu amati ay jafe-jafe parce que ñoom buñ koy def dañuy wut lu luñ ci am waaye boo fi bàyyee ñii dem jënd ji Europe fële te lu ñuy def qualité la sa sa askan bu ñuy jéem dara da nga leen ciy jàppale donc je pense que li nga am na solo mooy waaye tamit tey dafa tombeek euh, bés bi nga xam ne mooy journée mondiale de alimentation mooy lu ñu jagleel wàllum lekk gi kon nag tey jii dëkk yi bu ñu amul lu ñu jàpp lu ñuy liggéey ci wàllum alimentation bu ñu ko deful dañuy dañuy sooxe dañuy sooxee loolu lu am solo la ji bi mooy ñi jàppale suñu bopp rek mm. gën a góorgóorlu rek parce que ku ne alimentation rek xamal ne loolu si suñu dund la bokk parce que boo ne nit rek nga ne lekk nit mënul euh, dund sans lekk euh, mais euh, ñi gën a ñaaxaat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu baat tey ñoom ñooy suñu lépp état mu gën a gëstu askan bi parce que jafe-jafe yi bëri na fi donte sax lépp mënul jeex mais nañ def. le maximum le maximum waaw loo xamante ni moo mënul ñàkk. waaw mënul ñàkk su ko defee rek euh, askan bi tamit dinañ leen mën a jàppale ndax ñun du ñu mën a dem sax ñoom mais ñoom tamit du ñu mën a dem sañ ñun. waaw askan wi tamit euh, ñoom war nañ mën a jaay lu am qualité defaraat affaire yi comme ni ñu koy faral di waxee lu bari te te amul qualité moo gën. lu néew lu néew te am qualité moo gën lu bari te amul qualité donc booy defar dañ nga ciy bàyyiwaale xel loolu noonu bu ko defee yow état bu la jàppalewu sax nit ñi ñoom ñooy ñëw jënd li nga xamante ni moom ngay jaay nga mën ko génne ci marché bi waaye di defar loo xam ne nii tamit euh, qualité bi dafa des waaye prix bi tamit gën a cher loolu yaakaar naa ne war nañ ko bàyyi xel muy baykat yi mais baykat yi des fois dañuy gis ne dañuy sonn trop que euh, dañuy am problème mu jiwu wala ñu rayante ba am jiwu bi donc assez risqué la ndaxte mun nga ko def euh, yàlla rek moo la ciy dimbale waa nga nga nga bay dem ba ci kanam affaire bi jàllul bu ko defee li nga mujjoon a bay da mujjee togg lekk ko wala tamit nga bay dem ba am récolte bu baax dem ba ci biir euh, doo am ku ko jënd donc baykat yi tamit dañuy sonn te bay dafa métti de da ngay nekk ci àll bi di liggéey di liggéey ba benn un certain moment euh, dara desul lu dul jaay njaay mi nag nekk ay jafe-jafe waaw jafe-jafe yi sax des fois du euh, commencé foofu ji bi comme noo ko waxee rek nga am sa yaakaar rek nga ne damay bay nga bay ba pare rek taw bi ñëw des fois ñun suñu côté bi des fois bu tawee nii ba taw bi arrêté parce que ñoo xamante ne dañuy yàkkamte bay premier taw rek dañuy bay suñu bayee rek après taw bi daal di arrêté affaire bi commencé sonal leen sonal leen sonal leen ba lépp lu ñu bay rek duñ ci am xam nga loolu tamit risque la faaw état mu jàppale leen bu baax a baax ndax tey ji ay borom jabot lañ comme ni ma ko baaxoo di ko wax rek saa su rek ko bëgg a liggéey rek danga koy jàppale tey jii baykat bu taawam sax bu demee ba am yenn âge trois 3 quatre 4 rek buy dem rek day jàpp ci loxoom ànd ak moom dem waa jàngal ko lu muy lu muy béyee parce que ñun loolu lañ am loolu lañ am gis nga li am nii lii tey la am mais ñun li ñu amoon li ñu daan dundee te loolu dafa nekk lu lu lu lu naturel loo xamante ne la tey ñoom seen maanaam seen seen wér gi yaram si foofu lay dépendre parce que liggéey bi ñuy liggéey ak ñàkk bi ñuy ñàkk ak lekk yi ñuy lekk lekk yu baax la lekk boo xamante ne raxul dara dafa baax ci santé dafa baax ci. waaw moo gën de yenn bagage yi nga xamante ni waaw ñaa ngi koy def ci togg yéeg yi ni mel donc mhm. loolu tamit euh, day tax nit ñi duñu am. waaw wér-gu-yaram dañoo fan. waaw waaw dañoo amal fan mais ñun mhm. suñu génération rek da ngay gis nit am 22 ans ay 23 ans ñu ne la faatu. waaw lekk yi dara warul ko lu dul lekk ak gaaw a màgg gi da 10 ans 20 20 ans. donc da ci am hmm. lek yu baax lek yi ñuy utiliser la lu nek dañ koy mélanger suñu suñu Ils yi surtout ñun jigéen lepp ñun la. ñun ñoy togg ñun ñoy yek ñun mélangés. lu nek ñun la ñun ñoy dugg marché di lu lu lu rek ngay ndax def dem marché tamit. voilà jaajëf mu ngi noonu kon nag euh, tey ñu doon woo doon waxtaanee lu jëm ci wàllum euh, alimentation waaye tamit euh, di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu production ñi nekk ci wàllum diwlin gi ñi nekk ci wàllu mbay mi mu nekk liggéey boo xamante ni il faut que état bi jàpp si waaye nit ñi tamit jàpp si xam ne ni entreprise locale moom ba fépp fu ñu commencé di jéem askan war nañ see jàpp ndaxte ci biir réew mi lañ koy defee te tamit waar réew mi ñoo koy def moo gën nga jëggaani leneen loo xamante ni ci gin bitim réew nga koy jëlee ba nga koy jëlee bitim réew te mu am ci réew mi nañ ci góorgóorlu bu baax a baax di ko sàmm euh, bokk na ci tamit di jàppale baykat yi nekk ci àll bi di sonn ñu bayee ba pare seen mbay mi nañ ne xool euh, li nga xam ne moom lañ ci mën a jënd ñu jënd ko suñ ko mëntu jënd état bi tamit jël li nga xam ne moom moo ci des ñu daal di koy euh, jaay taamu na ko def ay ay produits yu bari muy gerte muy euh, dugub muy euh, ceeb bi muy leneen ak leneen ak leneen li ñuy bay donc loolu day faral di am solo kon nag euh, Binta ban leçon ngay jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi rek ngir ñu mën a jàpp ci liggéey bi ñu daal di gën a avancer ci entreprise locale yi. waaw euh, ci fi nga tegee sa baaraan rek man foofu lay jëlee rek xam naa dañuy ñaaxaat rek euh, état ndax euh, ñoom ñooy suñu yaakaar ji bi tey ñi jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy béykat ndax li ñuy béy développement la tey suñu demee ba béy lépp lu ñuy jaay suñu ko mënee jaay Sénégal mu jar développement lay andi da ngay gis koo xamante ne toog na croiser les bras mais bu amee fu muy jàpp rek développement dina am su ko defee rek ñi jàppale leen si su ay machine parce que fële ñoom lépp lu ñuy liggéey rek ci seen doole la ñuy utiliser ñi jàppale leen bu baax a baax euh, jox leen ay bagages yi nga xamante ne ñoom moo loolu moo leen mën a jàppale ci euh, liggéey bi ñuy liggéey su ko defee rek euh, jàmm daal di am Sénégal. jaajëf Binta kon bu ko defee ñu tàggoo rek ah. waaw tàggatoo mooy rek nee naa leen ku lay seetaan rek lu kooku rek mooy sa mbokk ñi euh, gërëm suñu téléspectateur euh, Mbour TV yéen ñi safoo saa su ne rek euh, di suivre seen émission Mbour TV matinal nee naa leen Mbour TV matinal rek ku ko bëgg a seetaan da ngay daal di def Mbour TV point net rek nga daal di dugg suñu suñu site chaque jour 24 heures vingt 24 ñu ngi liggéey tey ay ndaw lañ bëgg nañ dem kanam te su ko defee rek yàlla dinañu mën a jàppale ndax yàlla duggee rek kooku rek la <laughs> gis su ko defee rek dóor waar la ñu wax ñu dugg ba Maroc nuyoo sama xarit sama sister nday Jatu Candum ak Mamadou Ndaw ak Omar Badiane Ndiombe Safou kooku suñu téléspectateur fidèle depuis ah, fan la Espagne waa depuis Espagne njombee saafu borom ñi dem ba Casamance dem ba Dakar nuyu ñëpp gërëm ñëpp di leen jox di dajee rek a demain incha allah même télé. jaajëf euh, kon mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan jër ngeen jëf di euh, nuyu bu baax a baax ñëpp ñoo xamante ni ñu ñuy bàyyi xel si seen émission Mbour TV matinale di leen jox dig daje ba suba incha allah si benn numéro Mbour TV matinale jaa ngeen jëf merci bien.